yi waaye ñu ngi maa ngi gërëm ñu tam gaynde njogoy ne njogoy ne wax dëgg man de njogoy ñu ne moom dafa njogoy nana ngata de njogoy nana xana naa yow yaa koy njogoy na aduna ye a jare adoo quoi gis maa ngi sama to faa waxete vraiment ɓi ɗo ngene moom yasamoro ɓe ɗam yam e tarenene ke falayno falayno maako a refanga yeero nong ɗayelo a a ñoxorate xa ñoxurno naak maako yang ko kadam dum apa yang kena ndax li jess ci wax leleg li jess di di wax kon lolu ñu ñu ko ci gërem lak nak comme ni ko waxe legi am solo lak solo ko di ko lak ko sos yalla defar lak wacce ko ci muy loo xam ne jëriñu xeet woowu la xeet bi nag war koo xam bu baax ndax làkk mu nekk ci réew mi na loo indil réew mi maanaam léegi dañu ne demal sa soosee mu defal la dangam léegi dañu ah boo xam séeréer yow man loolu kay muy doon rek man ci séeréer léegi dañu ne hé loolu lépp yee ko moom gis nga lépp mais loolu lépp lu njëriñ la kon vraiment war nañu ko jëriñoo bu baax a baax léegi léegi man dañu ma amoon luñ ma luñ ma taawoo te loolu sax sëñ bi wax na ci léegi information de proximité am na lu ci gaynde wax bi ndax nee na général bi foofu rek doyoon na misaal waaw général bi yéen dañuy xaar ba ñu gën a ko ñu door koo jàpp mais dañu ko avant ni pour kii loolu nag mooy loolu nag information bi am solo information de proximité dafay jógee nii jëm nii jóge nii itam day yéeg ak a wàcc nit ki nga ne yow yaa nekk ci réew mi sa gox sa dëkk war nga li ko daw waaye keneen itam bu fi bëggee indi dara war na la ko war na la ko yëgal bala mu ko koy indi bu ko defee yow da ngay ubbee ku xam lépp mais lu bëri lay am kumpa lay doon léegi nag ci loolu la ñu bëgg a xalaat tuuti rek ndax xam naa ne yéen ñii déglu ñeen a gën a xam bu baax a léegi nee nañ xibaar bi xibaar bi gën a jàpp communication de proximité xibaar bi gën a jàpp pardon bi gën a jege xibaar daf loo xam ne lii doomu aadama da koy soxla dafay soxla xibaar ba fu mu toll maanaam li def yàlla bind yëpp doomu aadama kese moo ci am information yu bokkul moom mooy ci toujours bu xëyee mu ngi wër ay xibaar yu bokk ci te bari su dee malayka benn xibaar la ñu am moom la ñu amoon ba tey ji moom la ñu am amul beneen xibaar ba leen ne jëli leen ba tey ñoom liñ li mooy jëli sabar yàlla amul amul la ne amul ñu maga amul bu bu bees kon ñoo ñoom soxla mu information bu dee itam lu mel ni jinne jinne soxlawul itam xibaar yoo xam ne maanaam dafay sori lool maanaam xibaaru suba soxlawu ko ndax moom xam na ko ba xam na ko ba noppi li ci kanam lépp xam na ko ci ginnaawam la xamoon kon xam nga du kooku wute na ak nit ñi wute na ak ak ak malaaka su dee dégg jur yeeg loolu maanaam lu mel ne jur yi jur soxlawul tam xibaar yi démb maanaam soxlawul information yeer xam démb soxlawul ko moom li ci kanam kese moom xamul itam suba par exemple tey jur mën na xam ne su ma baaxoo dem ca tool ba rek naa lekk ba suba mais la ca tegu xamu ko lu mu nii nit xam na ne su ma demee tool waajee su ma fa sàccee ñam wala mursin mbokke bopp ne biyaa ko am gudaa kursi te yaa nga xam fanel xalak ko boo ci kati lan waaw ma bëgg a wax foofu rek ndax léegi ma jaxasoo nag dem ci séeréer yi waaye xam naa nag ci moom ñu bëri dem leen séeréer yaakaar naa wala bu ñëpp de ah bon voilà voilà léegi euh, xibaar boobu mooy par exemple nit ki na seen dara war faa dem jëriñoo ko te du ko teg ci yoon mais du xalaat ñee dee xalaat ne ah ji wóor na loolu loolu la jiw amul nag amul loolu bay amu ko xar amu ko loolu la ñu xalaat moom dañ ñëw rek lekk sa def ci bu seen yoon nekk kon nag loolu itam jar na xalaat bu dee bu dee par exemple itam ba tey moom jur gi ñoom ñoom ci gisaat mooy lekk naan fii laa koy defee ak fee laa koy defee nag amuñ ci xalaat ku leen neex defe ko kooku moo jur nit nit rek mooy soxlay xibaar di wuute ñett xibaar la nag benn bi mooy bi la gën a jege benn bi di di dugg doomu ak beneen bi mooy a sori ci biir xibaar itam nit solon ci fukk ak benn yu bokkul fukki xibaar ak benn yoo xam ne ñoo wute nit bëgg naa xam ni moom ndax ci nit moom kese lañ xamee boppam nit bu doon conom ci moom kese gi du keneen moom kese kon dina doy waar moo tax nit foofu mu am keneen ku mu waxanteel pour xam boppam maanaam nit ki seet la ci nit waaye nit itam ci yëg-yëgam bëgg na ci information ci yëg-yëgam bëgg na ci xibaar nit itam bëgg na xibaar ci koom-koomam nit bëgg na xibaar ci am amam nit bëgg na am ay xibaar ci kaaraangeem nit bëgg naa am xibaar ci xayam maanaam nitee nit itam bëgg naa am xibaar ci bindee bi jabu yaa xam ay ngelaw laat naa ak yeneen ak yeneen waaye nit itam bëgg naa am xibaar dëmbam nit bëgg naa xam ba tey am ay xibaar ci li nga xam ne mooy yaramam ngir yokkuteel waaye ak nit ak kaw nag suuf maanaam fukk benn xeet la yoo xam ne bu ci nekk sax moom mën na jur yenn fukk ak benn kon ba ko seetloo xibaar du mu du muy mën a jeex mais mën nañ mën nañ njëkkee li nga xam ne mooy nit ak nit nit fu mu toll bëgg naa xam boppam wax naa ko léegi mënul xam boppam mu du woon nit la ñu yére yi sax da nga naan eh yow tamit mu rafet naa mais grand sakat bii moom ñu teg drapeau Sénégal bii vraiment joli sax lii moom bëgg naa ci mais bu woon moom dama ko ma koy ban laa koy xamee moo tax nit toujours day natt ci boppam ci nit leneen lii itam mooy loolu waral mooy baat bi ñuy wax naan nit nit day garabam nit nit day garabam fu mu jot soxla naa xam ni moromam fanaanoo mbaa lu mu góortoo moo waral sax ñu naan asalaamaaleykum boo xëyee nga nuyu suba teel pour xam lan la fanaanoo bu ko defee tam nga xam naka ngay def ba jaase lool waaye li jot yëg-yëg teg li muy yëg nit dana yëg lu bëri ci yaramam. yeneen yeneen kii naan yeneen yeneen di ci kooku anam kon loolu bëgg nga information ci moom bëgg ngay xibaar ay xibaar lu jiitu juddoo nit dana ngay yëpp wala sax dinneem mbaa sax wala yëngu-yëngoom sax nit dana ci bëgg a kese moo lay mën a indi nit ki ci nit ki toll dëgg dëgg maanaam bu dee mbirum tàggat yaram ki di tàggat yaram bi moo tax ñu lay nuur wala lay dem dafa mel ni nit ku nekk soxla ñu soxla nañu am ay xibaar ba mën koo déglu bu dee ci géej gi itam noonu lépp géej gi yëpp soxla ñu xibaar bi géej gi biir suuf bi gàncax gi ci suuf carrière bi yu mel noonu bëgg nañu xibaar ay amul xam-xam ci mbirum xibaar nee na xibaar ñett la li ngay sakku nga xam ne yaa ko sakkul sa bopp di ko wuti kooku sax kooku sax ci wàllu bopp yaa ko wuti am na beneen boo xam ne da ngeen a daje kooku loo ko woon kooku sax ci baax moo tax ci baax dañu lay lu ñu war a seetlu da ngay taseeg moom te xamoo fi mu jëm xamoo bàyyee ko waaye xibaar kooku xaw nga am fexe ba njëriñoo ko beneen bi nag mooy bi nga xam ne euh, dañ la ko andil ci kooku loo ko woon te la ko bëgg sa kanam kooku itam riba la kon nag ñu ne fan lay jóge dëgg dëgg riba mooy jëm fexe ba tey itam li nga dégg li nga dégg nga fexe ba téye ko na nga ko na nga ko téye ba mu dëgër nga seetlu ci bu baax leen li mooy seetlu seetlu nag mooy càmbar ko bu baax seetam dal ko ba seetlu ci riba jëriñoo ko jëriñee xibaar bi gën ci xibaar nag mooy di faj sa soxla léegi léegi bi ci tegu mooy di faj sa soxla diir bu gàtt beneen bi mooy di faj sa soxla diir bu gàtt mais dana ko faj waaw comme par exemple li ko doon waxee si biir ginnaaw si biir ginnaaw waata si biir ba ginnaaw waataati si biir semaine la li ko ma ma ci daan wax ba ba ngay àgg nag ca muy lu ci am na xibaaram fan lañu koy pore xibaar ci kii ca kële kooki koo kalee muy kii kële kooki ak koo kale dana tax xibaar dëgër ndax nga koo ko wéyee xibaar bi yéeg mooy bu jaxase ba ñuy réeroo xibaar bi jaxase ay doomu aadama ñu réeroo baaxul jaxase mbootaay ñuy tongoo baaxul jaxase dëkk ñuy noonoo baaxul xibaar képp koo xam ne dafay tax itam nit euh, jaxase ngëm ba nga xeeb ngëmu jàngu loolu yëpp baaxul ci tasam réew jaxase xeet ba ñuy xeewoo kooku itam xibaar boobu baaxul ak lépp luñ ci yëpp loolu doomi aadama kon moytu xibaaru foog naa xibaaru ñoom diw ñoom ñoo ko wax xibaar bu amul wéeruwaay dana jur wéeruwaay xibaar dana nekk itam dëgg te du baax nekk itam dana nekk dëgg te baax misaal wax ju si day booy di wax di wax ci yow jël yu bëri ah non non vraiment te fekk day moom waxoon ko dara sax waaye da ngaa bëgg mu bàyyi non vraiment li mu wax ci yow dëgg dëgg neex naa dégg ku la ku la tàgg la ci li sa geste bi nga def keroog bàyyi noonu dina tax ay nit di ko waxoo dëgg ne loolu baax na dina tax ay nit di ko dégg naa ne sàcc yi sàcc barke bi muy dëgg naa ne sàcc ñoom jiw kooku dëgg la day baaxul parce que tuumal nga sàcc ba yëpp léegi nag kon ci baax mën nañu ne mën nañ cee jaamu yàlla daal par exemple mën nañ cee jaamu yàlla moo tax bu ñu dégloo bu baax a baax diine yi diine yi de laa wax danañu xam ne sax xibaar ndekete yoo waree su ko euh, caaxaan jàng nañu ci alxuraan ci saaru yaasin liyo ilifataki inapahatisika sayazikaru man yahla waaye itam mu ne fu ngeen toogatee ak nit na ngeen léegi métti métti lu baax te loolu kese métti lu baax bañ a indi wax mu fi rek dana tax nit ki fàttaliku dana tax nit ki ne ne tegu ci yoon yi ñu wàccoon kon communication de proximité mooy xibaar bi tax nit ki gaaw a dem ci njub ci njub ah ñu dem ba ci ci biir bi mu ne kat apotariya daa nañu daa nañu kateeg yëpp yàlla yeesu di ko déglu di ko dégloo ak a laaj jot xibaar su doon jot xibaar kon kii ak bële amul benn xibaar yi nga xam ne jóge ci suñu borom di moom la doon jox ñooñu te loolu day tax tegu si nga a tegu maanaam wax ji day def la delloo si nga si tegu ci gàttal Sénégal xibaar yu tànk moo lay gënal yeneen suñu réew Sénégal dafa mel ni xibaar yu tàng moo leen gënal xibaar yu tedd booy déglu xibaar yi xibaaru kaay yëpp lañ laaw di ñuy werantee di di di gongante yi di wax yooyu la ci gën di jàpp di ko dégg mais su ñuy waxee par exemple euh, yaru nit yàlla nee na maanaam dafa indi ku baax ñu ay nit baax ñuy waxtaan ba mel ni ñooñu di leen di jàpp dafa néew maanaam boo seet su ñuy puroo daal moo gënal gaa yi ko muy nag lu ñuy déglu mbaa lu ñuy reetaan ci di waxtaan ci débat pour yéeneen gënal loolu nag suñu safaan la yàgg na fi ndax euh, boo mi noonu ñaari xale yi ñaari bëri léegi ñuy bëri fii te amul dóor mën a toog di seetaan rek waaye gis nga boo indoon beneen combat fale ñuy dóoral fara gaa yi jëm gaa yi ci kutba ñu tàng ci nekk foofu la ñu gën a boobu suñu safaan la kon dañ ko cosaanoo quoi maanaam plus di taataanee xibaar ñu ne dëgg-dëgg gémmiñ rajo télé ak xarala yu ñeent yi mu bu dee bind journal photo affiche tableau ak ñoom teel di joxal te nit ñi xàmmee xibaar kooku moo gën a jël léegi dem ci léegi am ci moom xalaat su ma ñëwee nuyu ma ma jox ma jox gën a xam loolu si bëri information comme d'abord nuyoo waaw nuyoo jàmm euh, jàmm sante na tax koo demee ci góor gi gaynde yi mu jox ay xibaar waaye boo ñëwee nuyu loo góor gi na nga def na nga def waaw xamoo lii du la ci wax dara mais ndax dafa xam yow mii même bu ko joxal da koy li nga koy li nga koy yëgoo du baax kon nag déglu la ak teewlu setantal seetlu méngale ndeysaan maa ngi maa ngi rafetlu ndeysaan Martin Faye euh, maanaam ay ay maanaam xibaar xam naa dinaa jëm si kanam ko tasaare quoi dafa am lu am solo lu ci nekk loo xam ne boo koy joxe sax nee na am na jaamu yàlla te feeñ na fi yaakaar naa ne Sénégal bari na xibaarukaay koy seet li ci xibaaru kaar yi bari na lool waaye lanu doon rek euh, bu ñu jëlee rajo bi rajo yi par exemple rajo bu njëkk bu waxaan dara ñun rajo bay ko wax eh dégg na waaye léegi rajo yëpp a ko tax mu nekk waaye bu bu njëkk noonu rajo bay ko wax waaw ah, parce que fi mu doon jaar dafa sori fi mu doon jaar dañu daan xetal sàll indi ko fii ñuy jox ko ñeneen ñuy jox ko fii ko mu leer nañ sotti ko ba mu teg ba nga xam ne bu génnee du gaañ kenn loolu la daan waaye léegi da ngay waaxu ba ñëw rek ñu rek wax wala problème yi ngay gis ci réew mi dara fa mu am am na yu bëri yoo xam ne mënta ñàkk ndax li koy indi euh, maanaam li koy waral toujours mooy li koy indi li koy indi ngi fekk li koy indi nag di yokku muy ngeen di yokku kon Sénégal loolu euh, mbir la fi woon boo xam ne wax dëgg yàlla amoon nañ ci loolu euh, mbégte ci rajo rajo wax nañu ñu booy léegi tey ci rajo yi gëstu nañu tey ñetti téeméer ñetti téeméer rajo ëpp na Sénégal nekk na Sénégal lu ko ëpp sax ñetti téeméeri rajo lépp ñu rajo Ndakaaru waaw ñu ne boo demee ci site yi nag site yi ñoom itam ëpp nañ ñaari téeméer ñoom sax ay million kenn xamul ñu ko waaye journal yi ñoom nañ quarante journaux ñu ngi ci réew journaux national ak ngay journal yi mais yëpp ay journal dañuy joxe xibaar rek boo ca déggee nag groupe groupe whatsapp yi nag whatsapp yi moom xam nga kon daanaka ay millions lay toog te it dañuy joxe xibaar dañuy joxe xibaar tax xibaar yi moom ah day na waar de bari nañu fi te dañuy joxe xibaar maanaam xibaar boo xam ne nag kuréel sunu kuréel yii ñoo xam diina la wala benn sariya la wala nga ne dëgg la ñu sant Diop am seen seen seen whatsapp xam ne moom xam naa cere cere du ba jeex waaw moom lañ moom lañu bëgg waaye ñu sant jaay yi tam am seen groupe whatsapp sant ceeb noonu maanaam groupe yooyu yëpp ñu ay doom bàyyi ñu ñu dëkk ci dëkk bu suñu baree bari te dañuy génne ay xibaar kon nag bu ko jigéen waaw boo ko def ay gën a li may tëj nag mooy sant bu baax Matay di ndax itam du ngeen ci texe laa ñëw fii am na at moo xam ne yaakaar na mat na dix ans ci gannaaw euh, damaa jógee euh, dëkk ba bonde laa jógee ñibbi directement dem dal Kaboul fekk mu amoon fa benn kooka dama ne naa ko ko defal ci affaire bi sant Ndiaye bi ma doon wax léegi kon loolu yàgg na du tey waaye itam nanu bàyyee xel bu baax xibaar yi defar ak xibaar yi ak xibaar yi ñu defaroo maanaam xibaarkat yi def wax xibaar ak ñi xibaar loolu itam góor wax na ko léegi ma tax euh, ndaw si wax ak yi mu wax ci buñ ci tënkoo dañ am lu bëree bëree ma tax ak lu mu mënti doon nit war naa fexe ba eh, xam say mbokk xam li leen jig ak li leen jig ak li nga jig li nga jig yow ak li leen jig xibaar yi ñu gën acca gi mooy xibaar yi nga xam ne mën a ci gox bi ko jëriñoo li ma joxe benn xibaar mooy ba ñu rajo taw accident bi amoon euh, six kilos rajo yëpp sax la woon daal ku ci nekk boo ne président Macky Sall à seize heures à midi président Macky Sall à midi à seize heures xamuñu ñii di mooy àll bi mën a ay mbir mu mbir mi fi mu tënk mu nga jël trois kilomètres kàpp ñii di nekk ba léegi wóor na ne président dafa jaar mais comme xamu ko fekk président dafa war a dem seize heures ca six kilos ci accident mais nag six kilos dafa bokk ci ci enlèvement bu nii bi xamee wuñu loolu sax ñu ko dangay gis ba mu leer sa nekk raas boo gisee yu bëri di am loolu rek lay doon ñàkk a ñàkk a teewlu ba xam li ngay wax lan la door ko wax te wax bu xëyee ba ne tënk ni jeex na kenn mënatu ko eh, kaay kaay arrière mënatu mënatul ne donc ah. yàlla xam ne drame bi woo ci suñu damay leen président demul ñii rédaction bi laa ko ci woo damay leen président demul ñii président six kilos lay dem six kilos c'est à trois kilomètres de euh, de Kaffrine mais nag ci engagement ñi bi la bokk ah, ah voilà. Ah, li ñu naan jóg adama daa xam rek ñaax ci wax da nga war a gëstu ba mu leer nañ nga doog vraiment noonu lu ñu laa bëggoon a tëjee di leen gërëm bu baax xam ne itam wax dëgg ak lu ñuy ak lu man ci nekk te amuñu information bi gën lu baax rajo yi fi nekk rajo yi nekk fii nekk ñu fi pour di jox ay ay xibaar international foofu nañ ko xam RTS wala RFM wala feneen dañuy def fii seen liggéey mooy xamal nit ñi li nekk fii mais da ngay gis dañu rajo boo xam ne du pas journal nekk ci gox te du journal day xaar rek RFM di kii wala wala fajiri wala mu pare mu daal di ne nii rek teg yow xibaar yooyu moomuloo ko nii xibaar yooyu xamoo fu ñu ko jëlee xamoo ci gàmm dégg donc kooku sax dafa mel ni man man sax damay gis réew boobu man kooku du mu baax yow ci nga bokk te yow sa rajo bi yow da nga war a fexe ci nekk soo ko li ko wër yëpp xam ñu sàmm yi dundee xam ñu tool yi xam si gàncax gi baaxee xam xam xam xam fépp koo xam ne jakarta mën na faa jaar sax daanu ndax bu dee bi par exemple yooyu yëpp rajo yi moo ñu war di wax ak li ñu réer ak loolu ak ak suñu maire yi jaay ci te amuñu xaalis yi dem jëge communiqué ca rajo ba di fay ay junni amuñu ko waaye bu ñu la gisee ñaari téeméer dafa ne communiqué mais caaxaat yi la ñuy tuddee yooyu yooyu yëpp dañu war a wax waaye jékki-jékki rek nekk ci rajo fii fii taxul may wax bi commune yëpp tax may wax waaw ndax man ah, rajo am na ci quarante ans ren quarante ans ñàkk ci rajo mais li ma gis léegi moom jaaxal na jël information jaaxul def ko sa bopp te boobu loo xamoo fu dëgg ah loolu loolu la bëggoon naa te di leen gërëm bu baax di leen sant di leen sant vraiment neex suñu tonton ponse bi rafet na loolu wax bi rafet na macha allah yal na la yàlla may wëru ñu yàgg ci loolu ndax nee nañ képp ku fi jaar nag wax nga li nga li ne ñu jël na ci leçon eh, wax na ci bopp papa bi wax na ci bopp état daba Diouf eh, wax na it wax ju rafet macha allah ñu di ko rafetlu léegi nag eh, ci loolu dama leen nga xam ne ñi nga xam ne ñoo war a jaar waxtaan ak yéen wax kii li nga xam ne moo ñu dajale fii tey

ak li nga xam ne loolu la o ci commune Sokone la marraine nekk fii euh, représentante bi di Badiane Fatou Goor def naa ko toog di jàkkaarloo man yaa booy fin mois bi macha allah sama yaay ziar naa la nuyu la bu baax a baax euh, buñ jógee ci kooku dinañ leen wax dinañ leen woon ndax wanaat lay doon buñ leen wax ne xamoo leen ko defe naa ne ci sama ginnaaw kenn ko wax kenn mi lay taxawee muy Adja Marie Ngoné Dione Adja Marie Ngoné Ndione ku ko xamati dégg nga turam moom ñu si présente devant vous Adja Marie Ngoné Ndione tànk leen ko mooy artiste même chose moo toog ñu Adja Marie Ngoné Ndione waa Sipal nuyu nañ la euh, waaw nit kan nuyu ma la bien nee na ma boo yeggee nuyu ma leen bu baax a baax waaw euh, bu ñu bu ñu jógee ci Adja Marie Ngoné Ndione euh, dinañ jox la presse étape d'abord moom mu def waxtaan ak yéen jot na leen ñamal mais day dugg ci biir waaw joxul le président des étudiants Mouhamadou Lamine Thiam defe naa mu ngi fi ci salle bi ah ok merci beaucoup euh, bu ñu defee noonu nag ñu wax ak waa Sérère rajo Jokkër la ba moom defe naa mu ngi fi ci salle bi mu waxtaanee ñëpp euh, Jokkër la ba moom après nag ki koy tëj mooy euh, le représentant du ministère waaw xam naa ne ñëw léegi ci kanam bu ko defee ñu bàyyi leen ak sama appuyer appuyer ñaaw lii macha allah ñoom it ñu def seen démonstration. danaa koy invité bi ñu euh, seen bi Bernardo Sène ak Daba Daba Loum Daba Koura Bernardo Sène ak Daba Koura yaa ba seen Diouf day saan booba it sama tata sama xarit sama soppoo ci ba gën a bëgg te xamu ko xëy na dañuy doon gisee pour la première fois muy Mali Ngoné Diop dina bëgg defal leen njëriñ lu lu jaar yoon. léegi da ngay ñëw nga jël kàddu gi ñoom daanaka yi jërë ngeen jëf salaamaaleykum Makhayda Ndiaye la yaakaar naa dañuy gàttal rek parce que artistes e aussi bu ci nga xam ne moom moo nekk Marie Ngoné Dione wala association yi bu ñu demee ba nga xam ne deux personnes ñoo si des euh, waaw mën nga ko fayam en attendant euh, dañuy bëgg artistes yi ñu dem defi plan ndax añ bi buñ koy teg rek avant añ bi ah yow itam ñu kii bu defee ñoom ngay ni ñoom mën nañoo dugg ci chambre yi ñu jox leen seen añak <laughs> yooyu mais cosaan bi aussi mënuñ ko fàtte ndax dafa am artistes yoo xam ne dañoo bàyyi seen lépp te dañoo war a suy xam ngeen tabaski bi programme Makayre rek moo tax ñu jógee fépp ñëw pour présenter représenter tuuti rek la culture séeréer def ci dara soog a dem ñu ngi sant ñëpp mënoon naa ñàkk a wax ndax xol ñu ngi ci suñu septième édition muy Sokone TV ñu tënk li waral ñu taxawal Sokone TV ñun doomi gox bi lañ suñu waajur Ibrahima Ndiaye ñu ngeen ko xamee ci Massa Ndiaye yàlla dafa def dafa am fu mu jaar si dundam dafa jógee dëkk bi ñuy wax Bandoolu ndax ku nekk rek gëstu sa histoire dafa ci am solo sama waajur dafa jógee Bandoolu bi mu jógee foofu ñëw Sokone Sokone bi mu fi mu ngi nekkoon aussi ak suñu bàjjan Sira Ndiaye kër gaa ngi fii ci biir Sokone ni mu doon doxalee nii la gannaaw yàlla dafa def baykat bu école ubbee élèves yi ñëw toog Sokone jàng mu doon indi suñu wayjur bu jigéen moo doon nekk ak élèves yi euh, borom bi jël na ko ñu ngi koy ñaan yal na yàlla xare ko àjjana moom moo doon nekkat fii ak ndaw yi mais gannaaw béykat si nag la demee tey nga xam ne mooy village bi ñuy wax Dantaxo boo koy dégg nag village bi cosaan waaye am na lu ko yàlla def ba ñun ñi ñëpp administrativement suñu papier yëpp Sokone Sokone lépp lu fi waaye di man am naa droit wut ko samay doom ñoom ñëpp am Sonko kon côté boobu dama bëgg mu leer yàlla def 2005 laa commencé li nga xam moom mooy la communication ndax bi ma demee ba yàlla def jàng naa ci suñu famille man rek man maa si nekk un journaliste amul kenn koo xam ne sax jege na ba yàlla yàlla moom moo ma ko nattoo ma nekk ci 2005 bu ngeen déggee di jëm ak di jëm ak di jëm ak parce que bi ma commencé ci rajo avant may def formation avant a def dara bon j'étais un animateur ma dem ba mu ma ne lii néew ma ci waay mu jëntal ko munoo dem ba yore yenn âge yi di nekk ci rajo di animé di def yenn yi pour ma gën a jëriñ sama askan naa defi la communication gannaaw jàpp naa ci la ma yàlla dimbalee euh, ma def ko ba yore samay diplôme yàlla def bi ñu kiyee ma ne nag war naa mën a dem ah jàpp ci communication bi sama bopp 2005 yàlla def ma commencé ci benn rajo bu nekk dans la région de Louga muy Fembo ndax depuis quatre-vingt-quinze laa fi génn bi ma demee foofu di yëngatu ci rajo bi ba mu yàgg mu am rajo bi ñu wooyee Convergence FM muy premier rajo africain ci Sénégal boo xam ne langue yëpp lay wax Cheikh Tidiane Gadio ñu ne ma ministre des affaires étrangères moom moo ko moom ñu ne dañoo bëgg kuy wax ñeenti langue yàlla suturaal na maa ngi wax séeréer maa ngi wax olof maa ngi wax français maa ngi wax pulaar

ñu ne naa ñëw pour animer leen émission culturelle ba fa nekk aussi di dem di leen di defal des articles ma dema dema dem ba mu yàgg bu ñaan kii rek ay sonal borom bi rajo Africa 7 ak télé yàlla def sama benn koo xam ne man maa ko dugal man si rajo ñu jox ko seen programme ma mu ne leen li ma bëgg ci moo ma ko mën a def ma ma nekk fa biñ demee ba loolu weesu adduna di dox kilifa gee dox dina si ñëw muy jox te labam man liggéeyal séeréer rajo boo xam mu ngi basé à Londres séeréer yi ñoom ñoo ko fa mu ànd ak site bi ñuy wooyee euh, séeréer ressource centre ak séeréer héritage mooy label bi nga xam ne mooy jàppale les artistes kooku du ma ko xuus du dina si ñëw yàlla def yàlla boole ak euh, le PDG Tamsir Diouf mu dimbali ñu ba ñuy liggéey ak moom. deux mille vingt et un ba lii may wax ak yéen deux mille vingt deux lu tolloog huit millions jaar na ci sama loxo ma koy jibale les artistes te la ma faral di wax nag bu ma neexoon ma lekk ñoo ci ñëw ne kenn du wax ma dem ci étape d'abord gars yi fàtte ma waaye sama PDG sam si man dama koy gërëm yàlla dafa def ma am ñu am benn projet artiste yi xam nga yàlla def na duñ doon laalante duñ jegante ku nekk si ñoom foog na ne boo jegee mari ngoone doo am dara doo teg da ngay feebar da ngay def da def rek ñuy dawal ci seen biir je me suis dit que tam man jaar naa si rajo yëpp mais patron de presse yi li ma bëgg mënuñu ma koo defal pourquoi pas tey ma proposé tam si ma ne ko dama bëgg pour séeréer yi thème démocratie mu nekk pour la culture parce que ñuy def culture yëpp si si si si Sénégal te si gën a bëri si wàllu séeréer la ñu jël pour def ko mu ne ma bismillah yàlla dimbale ma si kàttanam am nañu ma mag noonu def lu nekk si culture ma jël exemple si kii lu nekk def na ko pour séeréer mais yàlla jaarale ko si sama loxo

lii mooy sama ma nii may wax ak yéen bépp artiste séeréer bu ngay dégg yàlla dimbali na ma ba ñoom ñëpp tënk nañ leen ci benn groupe ñu toog nag PDG bi boobu métti na parce que dafa am solo ñu wax ko ñun journaliste yi ci rajo nga nekk waaye yaakaar naa séeréer rajo li muy def nga jégal ma bu ma waxul lu nekkul dëgg rek bul ma arrêté bul ma koy ma ne ma li ngay wax du dëgg ban rajo ngay dem wala télé mu ñëw nga am événement

lii yàlla def na si suñu loxo yàlla jaarale ko si ba tey nii may wax ak yéen def nañ single boo xam ne bi ñu si groupe bi jokkee la nga nii parce que damay bëgg li may wax bi si groupe bi ñu ne ma ñu ne ban titre lañ war a mën a jox album bi ah am nañu propos man de ma ne lañ jël séeréer ne dina ñu ñëw bokk li nga xam ne mooy suñu aada suñu cosaan gars yi dafa baaxul léegi nag liggéey bi foofu la foofu ngay xamee artiste bi am inspiration ñu ne artiste yi cee leen ne indooma gumbo créé leen si benn refrain refrain mooy li ñuy ànd di koy wéy ensemble moom la ñuy woyandoo ñoom seen ñoom ñëpp ku nekk dugg si sa si sa ruq di bind di xalaat gis nga yàlla day may te ku mu may boo ko nangulee rek doo sonn xam ngeen ne revendication internationale ngeen xam Simon Sène ngeen xam Big Sène ngeen xam ñoom Fatou Diabane Thior ñooñu ñëpp ku nekk dugg sa bopp yàlla suturaal ko moom boo génnee rek may muy ma ci boole ci. résulé bi dama bëgg nga laal ma ko mën a la ngay wax dara.

yàlla def mu génne ko bu réussir Sénégal yëpp nangu ñu yëkkati liggéey boobu yëpp nag sama PDG ma yow yaay def promotion bi instant yi ñu ngi préparé war a def clip ñoom bu ñu paree dañuy def tournée nationale ak international séeréer yi kon loolu sant yàlla bu wér euh, bu ñu passé foofu ma ñëw si Sokone TV man rajo laa ko mën a taxawal nit da nga am yéen te nga day kàttan ba yàlla def am lu ma tënk te loo xam ne sama mbokk yi bu ci jàppoon tuuti rek rajo bi ubbeeku na man maa war a njëkk a installé rajo Sokone de passage nekk ci muy Issa Baro mooy moom kay moom peut être kay moom bi ma ñëwee mu ne ma buñ la dimbalee ba nga am rajo man maa lay jox teeree moo ko def ma ne ko mën naa installé ku nekk ba mu des ci côté bi parce que am na loo xam ne aussi mën ta am mën na la yàqal mën nga ma yàqal ndax rajo fu mu nekk xibaar bépp war a génn te keneen kii ñëw ci hôtel bi war a noppale wala war a def leneen mën na jàpp ne bu ñëwee journaliste yi mën nañu wax si moom ëllëg wala ñu dem si moom leneen yàlla def maa ngi dox di doxam yàlla la ma bëggoon amut ma jëlaat sama projet am sama benn koo xam ne dafa def si man lu bëri mooy tumbilaan FM bi nekk à Daara Nioro samay papier lañ defaree seetaan ba yëkkati jox leen ko ñu leen def daanaka daara yooyu yàlla dimbale na ko socialement dimbale naa ko ay handicapé tabaxal leen ay néeg salle de bain clôturé leen seen kër ya dimbale les handicapé ñu mën a doxee seen soxla ndax dama wax ne yàgg yàgg dañuy def mais dañ liggéey loo xam ne ëllëg ñu ne ma kay moom si tënk noonu la naa woo nit ñi ñu ñëw gannaaw ay kilifa dañ may soxla ne ma kaay defal ñu lii ma leen di defal waaye na may defee est-ce que am na keneen koo xam ne mu ngi si wàllu woo gis nañ ne na may defee mënoon naa ko gën a def mu gën a rafet man nga ngi jàpp ne li may def yëpp baax na waaye bu ma defee nii tey dina ko compassion bu tax a ne ma ma tey rek a ñëw soo ko TV di ak li mën nga koo xoolal war nga defal li war nga defal la lii baax na lii baaxul bu defee bu ma téye ma toogaat jàlluwaat si may terminer mooy ren dafa am lu si yow métti na toog si ñun waaye sant yàlla dama taxaw ne 2005 laa kii ba léegi tey bi posé woon ma kay léegi lan nga def ci gox bi kan nga fi formé mënu ma ko lu dul ñoom maa ngi dem ci côté logiciel à euh, la condition bi ma kenn ma fi formé si laa ne damay formé fukki nit si wàllu montage audiovisuel waaye technique d'animation doyen Moussa Mané waroon na fay teew amul képp kuy def fii nii rajo fii si am naa formation si rajo amul te loolu dafa dafa dafa garaaw dafa danger micro moom kenn du ko caaxaane micro mun naa taal rek réew bu nga gisee Sénégal jafe-jafe yi di si am ku nekk ku téye micro nga xam ne lii mu téye moom si boppam moom moo ko moomal boppam lu ko neex lay wax am na wax yoo xam ne kenn du ko wax man damay ñëw si kilifa introsé la nga wax wax joo xam ne yow mun nga faa jaar doo dencee ci dara si gox man effacé ko ba mu defar ko ba mu defar ma bàyyi ko soo ko ci bi du ngeen bëgg mu dégg saaga du ngeen bëgg mu dégg booy xam te lu ma gis lu baax ma def koy wax lu bon bu ma la mënee jot si la war a wax si ma lay wax exemple laa leen di jox danaa si ñëw léegi damay def projection rapidement ci li nga xam mooy réalisation bi yàlla pont d'Anglade bi dama def gis ay ñoo xam ne dañuy ñëw def laay di si wax lu nekk man dama nangu image yi soo ko ñu koy yàq ma toog ñu si wax lu nekk ma gis ko ma ne ko tàgguwu ma kenn amul kenn ku mun a taxaw ne man maa tax ma kay ne déplacé wu dem ko ma jógee Dakar ñëw bi ma jéem a def sama reportage def sama enquête ma jéem a ne pont bi ñaar ñoo ko seet commune bu Sokone ak commune bu Toubacouta li may wax dama ko ñëw ragal na dara parce que am naa as ma woo mairie commune bu Toubacouta ma ne ko yow yaa moom lii ma mun naa ma ne ko xaj ña fay jógee di jàng ci Sokone ci pont bi la ñuy jaar pont bi lan ngeen ci xalaat dama ma kay la awoon solution ma ne ko amoon ci solution mun naa ma ko baax ma pare boobu le ministre Abdou Latif yàlla dafa def mu tawat nekkul nekk fi nekkul <laughs> am na ñu fi def ma jokkoo ak ñoom madame ma dem ba si école ba muy jàngale ma ne ko madame Mané mu ne ma ne ko foo Sonko di la ngeen si xalaat représentant xarit bu jàngee loolu ne ma pare li ci war a def yëpp commandé nañ ko ba pare ay marocain ñoom ñoo ko man ma ne sama ko tax ma ne mu ne ma yàlla bu demee jamono ma ne ko bu ma demee def sama reportage ñu toog période bi ngeen ma wax def leen ko gis ma ko damay ñëwaat fii ne mairie ba lañ waxoon dara lañ ca def ndax nag même bu ma ànd ak bu ma ñëwee sama ànd ak monsieur le maire yàgg yàgg day def keneen ñëwaat mais la communication bii ma nekk xanaa ma dem ba man suma bopp ma ne soxlaatuma jël ñeneen ñu def ko kon sama ngor ak sama dignité dama koy denc man population bi laa àndal la tax ma déplacé pour la population yow la dem nii may waxee yéen danañ ci def benn kii xam naa ñu bëri danañ am lu ci yaakaar mais war maa yoon bi ku dee ak sa bàmmeel amul lenn lu ma séq ak le ministre lu liggéey bi muy def heure bu defee leneen lu mu war a def ci commune bu Sokone ma kay ne yéen yi ñu ko dégg mu ñëw taxawu la population kon dama si bëggoon a leeral yal na yàlla ngeen ñëw jàppale Bassirou xam naa nga tuuti tuuti rek nga may ma tuuti rek ma tënk tuuti taa yi nii am loo xam ne aussi bëggoon nañ ci ñëw tuuti rek tuuti rek xam naa nag son bi ko mën a am il faut que son bi dina gën ba saafara ma kii ko si si si micro bi merci beaucoup je suis en face foofu laay suivre sa rajo et cette émission nekk moom trop macha allah may émission yu bëri yoo xam ne danaa ko fay si di remercier nekk ci salle bi yëpp euh, Basirou kii ñun ñoo ko yar xam naa da ngeen xamut ni ñu bokkee moo tax mais Basirou la yar li mu nekk ak suñu bett ñu parce que boo ko doon liggéey bi wala nga ne ko dama jëli nag su mu sori sori sori nga dégg baat bi muy wëñ muy dem wala muy loolu la fa nekkee ba ñu fay jógee nit ñi ñoo ko yar suñ kër la yaroo xam naa ko bu baax kon euh, keneen ma leen bi aussi xam mu ko wax wax xam ko waa ñoo bokk benn baay moo tax du ko wax ci turam kii mooy suñu mag mooy suñu taaw yaay ñoo la ko faatu kon ñoo bokk benn baay donc bàyyi que suñ waxee terroir bi dafa vaste te ñun ñëpp ci lañ bokk ku nekk xëj nga ci fi gis nga ci sa bopp parce que biñ koy constituer dafa jógee fii ba da jafe-jafe jusqu'au Tata de Junat jógee fii dem ba Mbudaay jógee fii dem ba Djilor te ku am Djilor bi ak Djilor ci jàkk ni ñu bokkee nga xam ne kon suñ ne territoire de jafe-jafe c'est pratiquement le plus simple pratiquement le Sine Saloum kon nag ñun ñëpp ñun allah sa majesté ñu ngi doon wax lu ngi yow mais ñu ngi suñ ko lii dañ ko xam on est à la recherche de notre identité wax naa ko fi léegi boobu ko jógee ah di jottali kàddu yoo xam ni nag xam naa ne mënu ma ko wax dëgg fa yàlla leen dayoo bi bés di am Mbacare ci sama mangke ada Sumatera Negara salah sanjay injep di asosiasi Bilimbet yang pambai asto akhirnya lain yang Fatim Maroni badal itu vraiment gis nañ yow li nga def ci association bi dañ ne association bi vraiment yow la xam nga association bi ba ko sosé ak léegi dafa yàgg bayar juddu dee judduwaat waaye mu am ku ko suqal ki ko suqal yi mooy Bakary bi parce que bi ko waxee la communication elle est très importante tey bu association bi ak ci ni ñu xam ko ak activité yi muy def yëpp Bakary bi moo koy couvrir te bu ñu laaj bërëb tey Bakary ñàkkul ku mu pare ne woon bés bii tey te xam na ni association bi amul doole mu ngi commencé di constitué wu petit à petit moo ne du ma seeti kenn benn pare yéen laa koy pareel kon loolu rek le euh, geste boobu rek c'est vraiment honorable geste boo xam ne ni kenn mënu ko ko fay waaye boppam la ko defal parce que moom il est au cœur des jafe-jafe xam nga jafe-jafe da koy wax rek mais suñu waxee historique bi Sopor est l'arrière-pays de jafe-jafe pratiquement c'était un marché

ak ñi fi toog yëpp ñu lay gërëm di la sant ngër maa ne koo xam ne nii xëy na am la fu tàmbali waaye mën nañoo am fu mu yem ndaxte bu du doon yow ah waxuma la ne du du dem de waaye dina doon soox parce que ñu mën a man li nekk ci biir maam active mënuma ko parce que lii du sama métier man jàngale kat kon nag association bi activité bi nga xam ne nii lu nekk su ko defee que ça soit à Dakar mu dem couvrir ko que ça soit à Sokone mu ko kon kooku ñun amuñu njukkal wax dëgg fa yàlla amuñu njukkal ñu ngi lay gërëm di la li ko dale ci président wa ba ci gën a tuuti yéen ko doon nañ fa benn enveloppe nag xam naa duñ wax sax stop ak li ñu defal ñooñu mënuñu la fay amuñu lu ñu la fay dañ lay bàyyi yàlla yàlla moom bi nga xam ne nii mooy buur mag ku maykul yàlla dina la di fayal li nga sumb nii yàlla na sot bu sottee yàlla na la dig bu la digee yàlla na ñu digaale ñun ñëpp ndaxte vraiment makayre ñun amuñu su tey encore une fois dama la koy wax ñu leen di remercier di leen euh, baalu ak ci kàddu yi donc yaakaar naa ne makayre

Euh, je vous remercie mettre cette au nom de l'association, au nom de du terroir de na de la na de la fi ñu ngi ci biir yaakaar naa ni bu bokkul jafe nous sommes une même famille nous merci beaucoup. mais ci biir loolu dafa association bu jëm ci biir nga xam ne mère Fatou Koor moom moo ko sos di dimbale ñëpp comme ni ko Maguette waxee social ñu ngi ànd ak suñ mag Fatou Koor ak suñ mag Awa Koor délégation bi sax dama xaw ko ku lim da ngay jiw te temps bi meewu ko kon boog ngeen jégal ma ci lim ñun nag mère Fatou Koor dafa ma vocal vocal ji dama dégg ko kon mënuma ko dégg lépp ay kàddu ngërëmaale diggante mag Maguette dix mille boppam dama lire ma dama ko topp lu mu wax yëpp boppam sax mënu ma koo eggal ma kay ndax moté wu ko kon ba ma kay maa jël nekkal mu lay gërëm ci bés bi nga xam ne moom ko tuddee bu amoon àdduna ak bibiram tey dina la ko indil mais nag moom tamit jox nañu benn somme benn enveloppe comme ni ko la ñu waxee o moom loolu la sax yëkkati ko si mbooloo mi waaye nee na xeeb na ko toog waaye dañ koy jàppale jamono moo tuddee noonu ndax gis nañ surtout dafay bu ñu jógee même pas un mois te moom tamit mu taxawaay taxawaay bu rafet waaw ñu jógee si loolu daal si tabaski bi mu ñu xam ne moom social lay dund mu taxaw si taxaw taxawaay bu rafet encore lii ñëwaat ci koom mu ne kon nga xam ne enveloppe bii nga xam ne jox na la ko xeeb la ko lool lool lool wax dëgg mu ne woon naa la ko jébal si tur yi bien fàttali ko surtout seen association bi nga xam ne mënul formé muy kóoleel koog jëm ñu ne xeet na ko toog na waaye nag ñu ngi lay sant di la gërëm ci tuddee bi nga xam ne moom ko tuddee daf ko bamtu bamtu ko bamtuwaat ne naa ko wax ci kanam mbooloo yëpp nga xam ne lii moom xeebu ko ñëpp ñu ko ko xeebee moom ko xamal ne bés bu mu gën a fonk si àddinaam mooy bés bii tey waaw wax na ma ko waxaat ma te yaakaar na ñi ma àndal ñëpp bàjjen wax na wax wax nañu ñoom sax xëy na buñ jëloon kàddu yi dañ gën a jotal comme li ma wax mais lii du sama domaine man ku ma xam xam ne mbirum wax sama domaine waaw bu ñu fekkoon sama domaine ci mbirum bant dama joxoon ne ma bant bi daal moo ko lal mu ngi lu ma yombee mu ngi mel ne lamp bee contact lamp bi tàkk ndax foofu mooy sama domaine loolu laa mu ne mais pas ci micro di wax ci biir morom kon boobu di lay sant di lay gërëm bàjjen mu ne lii xeeb na ko taw ñu ngi lay ñaan yàlla yaa xam li nga bëgg sa àddina yàlla la yàlla defal ci barke bi salaay salaam ci barke Sadio Fatia fi nga toll fi nga bëgg a yegg yaa ko xam yàlla na ko fa yàlla yeggal ci barke islam ci barke Sadio Fatia ñu ngi leen a sant ñu leen di gërëm di ñaanal ñëpp fu mu waay jógee fi nga jógee yaa ko xam sori na yàlla na ko yàlla yeggal ak jàmm ci barke bi salaay salaam ci barke Sadio Fatia asalaamaaleykum wa rahmatulah. suñu fan suñu doomu day ak man mii di Aby Sow dëkk dëkk bu ñuy wax Diofior Thiaw ma gis fi sama koo xam ne damaa dugg suuf dégg mu la rek sama xol sedd buy ñuy jaay jaata di jaay ñi di jaay borom boo jege dama ne ma ne nii da dama ni di teel a déw ma ni ngoone o faaxa fema o faaxee ma fatu jàng ko faax otabdena ndaw hanonani naga maɓɓelo bari sone saxa feleyo saxerna jang kopa o saxa jangirijenjon rabdena ndawona ani one jona mi me faxa faxaya mani one jona faxa me faxa faxa fa na tena ndawoɗayo njom denmananke sa yay moy fanjay jom yoon te taw ba sant ñoom ci nga bokk mënuma ñàkk a wax li ci Sokone bi tey kii dane xale xale bu ndaw li jaay ji bi ñaay xam ne su may wax ma yàgg ci aar lool nit boo koy gërëm da nga koy gërëm ci ay bokkam gërëm ko ci xaritam mari nekkul bàyyi kenn mari demul bàyyi kenn mari lu mu def boole na ma ca boole fu ko may morom li di nga wax léegi dafa yor pusoom di ñëw rek di ñëw rek yàqu ci dara moo tax ñu ne boo nekkee borom kër doon na borom kër day doon jigéen day doon góor moo tax ñu ne e jaloori e mari ngoone maka baa nga nga adee amaka e jaloori Ousseynou Seck fête de Linguère macha allah mu sopp ko lool ndaxte mi nga bàyyee sa teint bi mu neex ko lool ci yow waaw ba sopp la ci lool ñi fi nekk ñëpp ñoom da bokk na su ma limee ñoom Basiru ah bàyyi ma kenn su ma limee du ma mëtal ak suma tonton yi ci kaw ah Jibi Ndiaye defe naa xamante ne moom kenn def nañu bu njëkk man defe naa ne lépp lu séeréer moo tax taxaw Dakar maa ngi gis depuis quatre-vingt-onze te man naa ne artiste séeréer yi ci bariwul artiste ba ci jiitu ndax sunu premier album maa ngi ko génnee mille neuf cent quatre-vingt-treize man maa ngi intégré orchestre national du Sénégal en mille neuf cent quatre vingt bi ma ñëwee Orfèvre National maa ngi intégré le théâtre national Daniel Sorano 1995 mooy bi maire Khady Diouf jëmee retraite Khady Diouf jaxaanoo ci lañ ma jëlee Orfèvre National indi ma ensemble lyrique le théâtre national Daniel Sorano ma fekk fa ay kàllam fekk fa ñoom ñu mel ni ñoom nday bay jin ma jin ma ñoom Soda Mama ñoom Daara Mbaye ñoom ma xaw a ñoom Kiné Lam Maam Bamba ñoom Fatou Sowel Diouf ñu bëree bëri bëri ma àndal loolu ñoom ma nekk xale ci seen biir te naa ne film Sorano yi yàgg yi wala bu gisee man ak Aram Camara ñoo koy nekk xale. ñu am itam lu ñu jàng ci ñoom ndax man damay ñëw Sorano ñëw séeréer bu may ñaan tuuna rek lañ xam xamul lu ñuy solo mais léeg-léeg nga naan solo ma ne leen mënuma solo mu ne boo jàngee ñu. kon nag jëlee naa ko expérience ba tey mille neuf cent deux mille quinze soo demaa nga dem retraite ñu jël ma def ma directrice artistique bu ensemble lyrique traditionnel bu compagnie bi yëngu des rural loolu sant la te itam wax ne loo doonul taalibeem munoo doon sëriñam ndax nag defe naa ne ci mille neuf fi ñu toll nii defe naa lu ma amagul ci aan lu léegi laa koy am ndax am naa ko cent ans xëy na buñ ko xoolee ci man buñ ko gis bi am naa ko cent ans ndax ren laa jëm retraite administrative ma koy sant yàlla bu baax a baax ci biir loolu nag am na yeneen artiste séeréer yu ma intégré fekkoon naa fa fay daal mais indi naa yàlla ñu ngi intégré na ko ci sama magistère ndig seen aussi intégré na ko ci sama magistère dama soxla nit balaa ma dem xëy na dinaa mën a intégré beneen séeréer boo xam ne moo demee na fa bàyyi ndax man li may faral di wax mooy nit mënoo lekk ci àddina lu dul sa wërsëg soo gëmee sa wërsëg doo sonn doo soxor doo ñaan man nee naa leen dunduma stress parce que li ma gëm mooy li yàlla bind ci ma jël ala kulli aali loolu rek laay am kon su ma jéemee soxor ci diig wala ci mon seen wala keneen mais loolu man defe naa ne su may wàññi rek ma yokk moo tax euh, ma tey rek bu mu waxee ne artistes yi dañoo war a def benn panel man dama ko ne man dugal na ci biir ndax man xëy na côté ba ma def ko sax amuñu problème loolu dëgg na yàlla dëgg rek laa wax suñu artistes yi ku xewle ñeneen ñëppay ñëw ku xewle ñëppay ñëw ñëppay sot ñëppay jàpp ñun amuñu problème mu ragalante ak dawante ndax marché bi bu xewlee ma ne moo leen et je ne pourrais rien même parce que ak monsieur Amady Sow yooyu moom la ñuy dimbali vraiment mais ñu ngi ko sant bu baax a baax a baax ndax Makayre yow kenn mënu laa fay artistes yëpp tuddee nañ la soldaaru artistes yi ñëpp tuddee nañ la basaaru artistes yi ku am sa programme yow nga defal ko eh, publicité enregistré monté gratuitement te ñun ñi ci yàgg xam nañu ne montage dafa métti dañ koy fay. képp ku ma mos a defoon publicité la may fay ndax 1994 laay tëgg a tëgg sumay spectacle laay ci euh, euh, théâtre de verdure bu Thiès te boobu moo fa nekk kon li ngay def ñun artiste yi mënuñu la ko fay dañ lay ñaanal yàlla yokk le PDG Tamsir bi nga xam ne moo ne euh, Séeréer rajo ak ñoom tukkeel na ba ngoom ak ku mel ne leen ci seen ak seen équipe vraiment ñu ñaanal leen yàlla li ngeen namm ci aaru séeréer ak fi ngeen bëgg culture séeréer àgg yal na leen yàlla jàppale ba vraiment ñëpp àgg fa fu waay mën a nekk ci àddina xam lan mooy culture séeréer ndax séeréer moom dunduñu lu dul aar ndax ñoom aar rek la ko donc sama mbokk joolaay ñoo yem ak euh, séeréer yi dëkk ca joolaay ba mujj nekk joolaay tam noonu la ñu def ndax man yàlla def na dem naa ba Oussou waaw ah, ndax mosoon naa dem tournée Casamance dama dem joué Oussou joué Dak joué Ziguinchor joué bi doon nag le lendemain ma war a ñëw joué Sorano te yàlla may na ma ma def ko def ak boobu waaw vraiment sant yàlla yéen ñu ngi koy remercier itam bu baax baax ci sa teewaay fii lépp li nga xamante ni ngay yëngu la na la ci yàlla gën a may kattan ak gën la koy jàppale kontaan ci yow imaam la ko la bëgg a bokk mu bëgg a yow

artiste foofu xëy joo kanaana mu ngi njal kii ma kay de jaay futi nanga gaa fo kay kele kii ma kay de jaay futi nanga gaa fo kay kele ni taw si juuf juuf bu re ñilaal kooku ma do faan waaja ko ko leen juuf ko du barok na bi jarga kan naa du géej ñam barok ak a sobay ba siidaa Tafsir Diouf Touré ñi naan Tafsir Diouf Touré ñi naan samsi juub bu rëy ñilaan fokk nga doo faal wàcce bu xole juub su barok ñoom di jaga kanga dogete ñam faroo kanga tokayo ko si daan kay ah, daga funga funge mum ne wara dilaaw na juub jaga ne jirafi jaga fayo ne joob kay pane juubeel gonok nanu baatar ko bakar a pani pane juubeel ne gonok nanu baatar ko bakar kattanu yàlla suñu borom ñu kontaan ñu bu ak si ànd ak yow yëpp kontaan ñu ñëw ak ñu ñëw yëpp nag seen xel ak ci yow tubaarkàlla macha allah yàlla nga yeggale sa bopp jërëjëf mais xam nga ne bàyyi xel nga sama bi nga yëkkati sama bu nga yëkkati da koo gàttal waaye ak nga am solo am Euh, léegi nag euh, dafa bëggoon ñëw wax naa leen ko léegi sax nee na dafa am ñaata ñu ne état bi ñëw te mu war a ànd ak ñoom ci ci ndox yi mu xam leen loolu moo moo ko téye mais waajoon wax dëgg yàlla bëggoon naa ñëw même buur si ci boppam sax xalaat demoon na ci bés bi tey ndax waxtaan nañ ci lu ci tey nii waaye leen daal ko ngi gërëm akay bu baax ndax biñ fiy jógee temps yële rek ak lu ko jiitu sax lu jiitu sax dem usuy bi maanaam ci anniversaire buur bi à Jaxaaw dañu ñëwoon indi seen matériel yëpp di gëfa liggéey bu am solo subaa ba tey jógu euh, waaye ñu ànd ak jaar Gàmbi bi ñëw ba tey jii ñëpp di ko waxtaanee mu am fa liggéey bu am solo bu mu ko def kon nag vraiment nee na mu ngi lay gërëm bu baax di la sant te di la ñaanal li nga sumb fii ah mu dem de ëpp Sénégal yëpp ndax communication dafa amul euh, maanaam lu yëg lu baax moom lu baax la rek. su ko defee mais nee na mu di gërëm yéen di gërëm activité yi ci nekk yëpp itam ndax moom itam xaritu gaa yi la ak itam nee na diaspora bi yëpp vraiment ñu ngi leen di sant di sant waa Sokone loolu nag bu paasee itam ñu sant si ak ay ati pour ma ku ci mel ni mari moo ne loolu nii wax dëgg yàlla euh, yàlla ñu dégg ci tur cosaan ndax mooy itam li eh, ko intéressé mooy mbooleem artiste séeréer yi wala ñu liggéey ci association séeréer yi sax booloo nekk benn kooku ba def na ci ay xalaat bu bëree bëri ay woyal sax loolu lay tekki kon vraiment ñu koy gërëm bu baax ak euh, sama jarbaat Abi Sow moom itam wax dëgg yàlla ku mën a woy sax xam naa ne mari moo nekk loolu sax waaye mari ñu lay ñaan di ko def xam naa daa yaa ngi ci sax yàgg na ci wax na vingt ans yaa ngi ci gën koo jàppale waaw dëgg dëgg si yàlla. ren la Habib Sow mii Habib Sow non waxuma Aliou. Aliou Faye waxuma ma ne dama ne dama jar baat bee laa wax dama jàpp bu baax di ko jàppale waaye yokkal nag bu baax a baax Habib Sow ah jokkeel ndox wax dëgg yàlla man gisuma ko sama dafa magal sama man ma magal ndax moom liggéey nañu lu bëri mooy moom itam jokkeel jokkeel la ba jokkeel la ba nag saltige jokkeel la ba ngom ak la ba jokkeel ngom mooy du ñi koy dimbale waaye ñoo fi gisoon jamono ji nga xam ne ma ba jax ma ba jaxu mu ngi ko rek mu ngi leen ak tuuti kooku ne ko. maa ngi ñoo ko ci bàyyi man def naa baptême def naa première communion def naa confirmation njëbel bi ñu laa yore benn dëkk bu ñu naan tur ay musulman kese fa nekk def naa sax càrtu Cheikh bi gën ñëpp dañu doon foog ne dinaa tuuti mais lii bu la dalee c'est quelque chose de surnaturel doo du mukk jël ndox ne diw defal ma lii déedéet man su may suuf ndox damay ne yàlla jëlal nga jox mi comme li ma wax sànq yàlla moomu may xam-xam wan ma garab yi ñu tudd di ma won jàngoro yi kon bu ma jël jàngoro jàngoro di ci def lu ko déedéet barki dem comme ni ko may rek ci àll bi laa nekkoon ba teg karam ba dama duggoon ci biir robin yi ma dugg ci biir ñu waxtaan parce que jaamu la ñuy dox nekk ñu jaamu lay wëñ ci laa dugg ma laaj leen parce que samay nijaay ngi fa ma leen kenn sama ay tontoo ngi fa am na ñu fa ne bu ko bëgg tiitoon naa mais man man la sama fit gaawul mel bu ma duggee ma waxtaan ak ñoom ba ma waxtaan ak ñoom ba pare ñu ne ma ñu de bëgg nañoo dépôt des armes mais lu ñuy ragal ñu déposé ko ba pare ñu ñuy poissonné parce que am na ay nit ñu déposé woon des armes mais dañu lay poissonné dans la wala ñu tuumal la dara jàpp la ñoom mu nekk ci biir àll bi moo leen dem naa sama benn nijaay boo xamante ne moo di waa kër bi ma waxee turam dëkk ba dañ doon jooy bu ñoom deewoon mu ne mënuma am doom parce que bi ma sànni sama deret samay doom suba du ma xam nan la ñuy def mais bëgg naa ci loolu d'une autre part li ma doon wax ma tey je les ai dit que man culture moo ma soxal te bi ma demoon ba am bàttal culture laay dox parce que ak li ma mel nii du ma dem toog ci bureau kan moo may askan si dañuy na sama séeréer dëgg yàlla mooy na sama séeréer kon tout ci fekk ma topp je suis entre deux dëkk séeréer ak arabe c'est compliqué complexe mooy li coolaay di bañ ko tëddee moom la séeréer yi nangu li séeréer yi nangu ko tëddee moom la coolaay nangu dafa ko ne waa amul dépassé les 32 villages du Wally amul droit yéeg ci gaal ñun dañuy naan loo xamante ne ñeneen ñi dafa soxla tabu jigéen am na fu muy yem góor am na fu muy yem jigéen bu sëy ci kër am na fu muy yem njëkk tamit am na fu muy yem kenn du dépassé kenn waaye ku ne am na comme tey sa jëkkër bu defoon problème yow doo ko wax magam bu jigéen mooy ñëw daw ci kaw. loolu tey boo demee ci sëriñ si am ko defal yooyu jabar moom jëkkër comprendre les autres jeunes filles comme moi ñoom ñu ñu foog ne ñu gis ci télé bi rek day gaaw a doon soo jugee jigéen da daan am sër ñenn ñi foog ne tabu la ñenn ñi foog ne baaxul ñenn ci lañ lay respecté yaa d'autres filles comme moi xamatuñu loolu boo waxee ñu ne la loolu baaxul jigéen da daan woon parce que keroog laa jàppale te tamit parce que laay doon xam ne ba léegi su ma wootee lii day di gàtt da ngay dugg ci benn bërëb mu xam ne ça c'est pas naturel te bu yëpp saytaane waaye da ngay xam ne lii c'est pas naturel yàlla di taw nga téye taw yàlla bu ñu mayoon bu ñu téye taw suqali taw bi jëli ko ba Guinée indi ko muy topp sa ginnaaw ngeen tooy ba egg taw bi bëri ngeen arrêté taw bi ba baax li ñu yàlla bu ñu ko may loolu duñ ko def seytaane am na fu mu yem kon bu ñu jàppalee wis la rek ah man damay daw man gëmu woon dara église daa xamoon kan jeex premièrement mais lii boo ci duggee daa xam ne cosaan am na Donc, o je l'ai dit à Macaï, nous tournons ces universités deux années de la conseiller sur le plan national et international. dëgg la woy am na solo ci la ñuy jàllale lu ne woy mën nga cee jooy woy mën nga cee reetaan woy mën nga cee mer mais tamit lu ñu xam maanaam la réalité qui est ñu wane ko ba ñu xam ne ñun am nañ cosaan comme say wala luy des ci biir arrêté les premiers toujours foofu man loolu nee na ko xam suivre ma nekk je cherche des partenaires les jeunes filles comme moi am na ñoo xam ne dañuy foog ne rab la du rab du rab man bi ma di daree dañoo foog ne sama côté papa la parce que samay maam ñoo sañ ci jaaxal te sànq yaa ngi tardé la chose ma dem ci joolaa ñu ne kon ñoom yàlla bu ma mayee kàttan bu mën a indi taw yàlla may ma kàttan bu mën a wax lii xew te xew seegul. yàlla may ma kàttan mu fekk saytaane loo xamante ne lu bon la yàlla may ma kàttan mu gis koo xamante ne day def lu bon ma ne ko diw ak diw man dama leen koy comme ma kay ku indi ci man nag fekk boo naree liggéey liggéey ci yow laa nekk ci léegi ci événement yi passé soo ko mati proposé leen ko huit millions plus que plus passion pour tout béréb bi mën naa ko am naa xam-xam bi mais du ma ko def ma dem ci gox ñu may may paax moo ma gënal may lekk alal xam ne alal buy lay la am natt dama bëri xadaar dama boole ñaari kër yoo xam te ne ñàkk ñu fay ñu ko bulee tuuti te doole dañuy demee ak jox moo tax moo tax yéen ñi mu ci dugg dama faral wax di génn ci wax bu bu média xam ne rassemblé na damay tey foo xamante ne ay nit dajaloo na bëgguma sax defal ko mu toog naan ci woo ma defal ko parce que yàlla may lu ma def rek yàlla la bu doon man nit dong du ma def mais dañoo yore culture culture boo xam ne dañ ko war a sàmm tey boo eggee ci soose yi soose bu ko gën a ndaw moo gën a développé Dakar laa passé ñaari xale jigéen ñuy làkk français te accent bi mu leer la leen ni séeréer cere ji la ñu mëkk ba toll nii ma romb leen nii maa ngi yor lii naa ma kaay ñu fasal ma romb leen nii ne leen xanaa yéen doo leen ay séeréer xam naa ci man kay du ma séeréer ils ont totalement dénigré yàggul dara kenn ci téléphone am sonné mu wax séeréer man ko laa ko séeréer chinois nga laa man ko lu yéen lu tax yéen boo leen doo leen séeréer doo leen fiyee fiyee keroog bi ma demee Cameroun semaine yee passé dama fa fekk ay séeréer dama làkk séeréer ba ñu ma taxawoon sawe lu may ñaar làkk français na ma tu as vu les gens maintenant tu me laisses dafa neex nga toog dégg si nga koy bëgg làkk joolaa man dégguma ko woon avant lii di ma dal man si sa papa laa loo ma laaj ci côté séeréer mën naa kaa xam mais côté joolaa sama yëngoo yaay la mënoon naa man si sa papa la ko mais lii bu ma dalee loo ma wax ci joolaa mën naa des fois dama yor ay moom ñu ne ma moo yooyu mu ancien la am na moo yoo xam ne dafa moderne nii ngay wax ak nii. on a une culture c'est pas que culture la ñu am rek. wax dëgg yàlla defuloo dara lu ñaaw lu baax rek ngay def ba nga dalee liggéey ak moom ba léegi mu boole rek moom tam biir ci loolu rek nga ko teg kon te nag lii rek la ñu amoon loo xam ne ni moom la ñu yóbbante ñu di ko wax te gërëm na mosu ko rafetlu nii nga xam ne jigéen la waaye tey jii ci li ma la waaye nag ñëpp séeréer yi buñ ko gisee dañ naan fii. dafa bokk ci ñun léegi ndax séeréer la ñu ngi gërëm ñëpp nag ñu fi teew wax dëgg yàlla yoon bi moo sonn rek ñu xaw a am paase yoon bi moo ñu tànnee mais itam fajar na lañ dugal wax dëgg yàlla mais xam nga rek yow jàll na jàll na ñu yàlla dogal ñu mu ni si jaar kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal di jëm ak ay jaay li nga xam ne nii moom mooy fekk li ngeen di def ñu ngi leen yàlla ak ku jot ñu di ko fekkee di ko teewee côté nag koo fi teew yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen tàggal di leen tàggal di leen ñaanal jàpp di ñaan yàlla bu tekkewaat ko ay ati ati ati at ñu ko fekkee allahumma salli ala sayyidina Muhammad man nag sama ñàkk dégg séeréer tey rek la mën a am tey la ma gën a gën a gën a man tudd Selbé Diouf maam tudd Siga Diouf maam tudd Mbéri Diouf asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu kenn ku ci nekk damay jiital ci sama nuyoo nag sama càmm sama góor ma kay la am nga xam ne moo waral ñu lépp tey waaw ma kay la maa ngi lay sargal waaye itam maa ngi lay félicité au nom du maire monsieur le ministre Abdou Coulibaly doom bu ci juddu woon 2015 ba tey sa ndey sa baay lay jërëjëf am naa ci dara ndax sama carte 2014 maa ngi koy yónni mu may doxal sax kon bon va soo continué ca kaw ca kanam may def ci sama nuyoo nag groupe international la directrice maire Marisol ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant waaye ñu ngi lay dalal jàmm fii ci Togo ma ci teg ma ci ma waroon dëkkee ah sa majesté waaw Aliou ñu lay nuyu bu baax ñu ngi lay li ngay wax jafe na cher bi ndax dañoo jaboot li la dal li ñu dal ñun ay mun naa wax ne tey à partir de tey ma lay door a exemple nga war a doon ci jeunesse bi Sénégal may teg ci sama nuyoo nag le doyen Sida ma lay wax ne suivre nañ sa exposé vraiment warul woon yem ci quatre minutes la ndax li xew ci jamono lu tax Sénégal fi mu nekk nii communication moo ko taal réseaux sociaux yi moo ko taal donc sa plaidoyer bii waroon naa jël yéen ay doyen ngeen ay référence ngeen ay exemple ngeen donc am na loo xamante ne benn taxawaay boo xamante ne war ngeen ko mën a am par rapport à certains journalistes ñi may woowee des journalistes en herbe yoo xamante ne vraiment ñu ngi leen di ci kàddu bi mais ñu ngi wutu fàtte vraiment la déontologie donc ñu leen ñoom ñaar sërgaye boobu ngeen yóbbu ko vraiment te di bëri ci Sénégal parce que seen bopp ngeen di amal boobu tax damay def ci ci Makeba Makeba ba ñu jëlee ren municipalité bi Sokone ba léegi dañuy liggéey mun naa ma toll mu may woo mu may message bi di soxla bépp activité bu ñu am ci mairie ci des présent mu ngi koy couvrir te man mun naa ne maag moom ñoo koy coordonné te ma kay rek mosuma laaj dërëm damay liggéey ak moom ba léegi mosuma yëngu dërëm jox te bépp événement du xaar sax nga woo buy dégg événement ah madame Aïdara naa nga ma fi ànd man ci sama bopp damay am kerte mais day ñëw donc lu leen lu leen di ci yow may dalal sa xel ci pont de Dangane pont de Dangane le 28 su ma juum bii passé le 28 mai la fi marocain ñëw ñëw nañ euh, andi nañ ay matériel utal nañ leen logement donc danañu commencé travaux yi du mu yàgg dara parce que jox nañu boobu assurance projet bi sësu na lépp pare na ut nañ seen logement ut nañ ut nañ ba wut si ñu jënd seen matériel ñu ngi defar sax kayit bi nga xam ne foofu la ñuy euh, foofu la ñuy nekk ñu ngi koy defar pour immédiatement commencer le travail donc foofu dara la ko xeetu loolu donc li nga wax dara bi ci kay bee si soog yàlla dama leen di ñaan assistance bi assistance bi toog ñu ñaanal suñu maire cër yàlla may ko wër yàlla dëgëral taxawaay ndax man nii xam naa yéene bi mu am ci Sokone man Sokone laa dëkk ci laa juddoo sama maam moo nekkoon borom dëkk Sokone ñu koy wax Ibrahima Ba Dia man mosuma politique jàngalekat laa dama daan piégé bureau de vote ba sama liggéey jeex ma dem bi duma vote mosuma intérêt mais 2012 moom bi mu jóg 96 laa commencé jàngale 2012 laa njëkk a voté te chaque élection dama doon suivre moom bi mu jógee ne dama bëgg dafa suivre am entourage am ni mu woo waxtaan ak man ci laa waxtaan ak ñun ci laa man pare na parce que man Sonko rek ma ñëw ñu ànd defar Sonko makay rek ñii tamit looloo ko ñor te xam nañ ci mu bokkoon mais depuis ñu taxaw mu wane am na yeneen ak yeneen ak yeneen yu ñu ne lii mu jot a wane di réalisation un an wu léegi de Sokone defe naa dal na xel dal na xel te ñuy ñaan yàlla yàlla gën koo yokk yàlla gën a andi projet yi yàlla gën a andi partenaires yi ñu liggéey Sokone jëm ma tey rek ñu ngi lay ñaanal fi nga bëggee yëngu sa télévision bi. yàlla na ko fa yàlla def yàlla na toog ba ñuy dégg ñuy dégg Sénégal yooyu man yëpp Sénégal ko fay dégg mu ànd ak wér gu yaram bu bëree bëri bëri ak kàttan ci wàllu sëñ naam sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu nag sama kilifa yi ma gis taal yëpp nuyu naa leen ñun ñëpp jërëjëf man bi ci mel maanaam fanaa ci doom fanaa yaroom bu benn bëgg ci naa yow bu ñuy wax la Mboucouti man je suis né à Mboucouti c'est à deux kilomètres de Sipek mais sama papa commerçant la woon ñëw biir Kër Badane am fa kër nekkoon chef de village bu ci xam nga séeréer moom dafa gën boppam waaw bu buñ nekk doo dëkk bi dem sama papa ne ah man nag damaa jaboot sama yëngal ci comme ci waa ji yëngal ci ñu jëndee ba xaaral ci commerçant jëndee ko samay mag sama papa suñu bàyyi loolu moo ko téye ci Kër Badane

i kon ñu bëgg ñu xool ko mu tafe ñun moom suñu teral Carmen y Simón, Montevideo. fois di leen di ñaax rek ngeen yokk teewaay bi gën a participer ci activités i te gën a yokk activité damaa bëri mandarga trop trop trop su fekkee ne gaynde nga bëgg a xool ci biir